Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup. Madame le ministre, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le directeur, Messieurs les chefs de service, euh, à l'ensemble des agents de ce département, les sports aujourd'hui, je voudrais adresser mes chaleureuses félicitations pour le peu de temps qu'on a passé. C'est un honneur d'avoir été au même si c'est pour trois semaines. Parce que tout simplement, je pourrais inscrire dans mon nom sur ce, dans ce département, ce département qui a tant apporté au peuple sénégalais. Ce département a permis au peuple sénégalais d'occuper le toit de l'Afrique quatre à cinq fois. Ça a été, ça a été possible parce qu'il y a du travail. Ça a été possible parce que vous avez été sérieux. Ça a été possible parce que vous avez été rigoureux. Je profite de cette occasion pour rendre un hommage à tous les ministres des Sports de l'ancien régime. Je commencerai par mon oncle Mbagnick Ndiaye, par mon ami et frère Matar Ba, qui nous a rapporté la Coupe d'Afrique et qui a rapporté d'autres trophées, champion d'Afrique. Et ceci, je pense, a fait la fierté de toute notre nation. Je pense que je suis rassuré parce que tout à l'heure, euh, j'ai entendu le discours de l'inspecteur général d'État. C'est vrai, je ne m'étais pas, renseigné, mais un témoignage a marqué. Dans la vie, il faut être honnête et il faut reconnaître la valeur de la personne. votre nomination, en tout cas, moi qui vous ai parlé, cela cinq minutes, et les questions que vous avez posées sur les dossiers de passation me confirment que vous avez des valeurs et des compétences pour amener très loin ce département. La valeur d'un homme n'attend point, et on devrait dire homme avec grand H, parce que je demeure convaincu que, le produit de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 aw ma sikk sàkk tamit ni que bëggul mu dem parce que wax na sax wala laaj wax problème yoo xam ni nekkul ci rapport bi mais daf la koy wax wax solution bi nit nag bu amee taxawaay boobu noonu parce que ñun ñëpp Sénégal la ñu ñor ñu ñëpp defar moo ñu ñor donc yàlla na ko yàlla kattanal leeral xelam dëgëral ko di ñaan autorité politique yi